wax naa ko bi fi Ablaye Wade jaaree dégg nga gësëm gësëm naa ko mu compal ma ma noppi raay mbelle dégg nga ñu tàngalaat tuuti ma compalaat raay mbelle dégg nga makki na cocc toog bu ñu waxee mu ne dëkk bi dégg nga neexul dégg nga xaalis amul moo taxit du ma bàyyi di ko sànni coton da koy neex war a éponge déedéet war li ko xale di waxee di bër bi ma lànk ma bañ lu ma gis laay jaar ci digg ba sama yoon nekkul ci éthique ak déontologie su ko neexee syndicat journaliste yi taxaw na sii du fi defati journal naqari nga zappe nañu dem ca élément ba nga xam ne moo topp ca eh, Ibrahima Sall nekk ca doomu Daaru Musti am na ñu yëngu ca Daaru Musti kenn ci militant ya taxaw na nee na ñoom daal dañ koy defanteeg maki Sall ba mu saf sàpp élément caméraman ba fa demoon nag di Pierrot ànd ak ceeg ña nga xam ne ñooy caméraman ñu nekk fii ca télé Futurs Médias ku ca mel na jatoog ak ñoom ka nga xam ne mooy ata nañu seeti élément ba ca Daaru Xuddus dama ne ñun kenn ñu yab Ibrahima sax ko waaye ñun dinañ war a ne Ibrahima bi xeex dama ne barki démb bi ku caa di génn seen tele boobu daa dee dugg ci suufu ronam génn puudaru man dama foogoon sax bu génnee danaan e année blanche bu du loon eh, Ibrahima Sall du am mu daa dee ne tekk ne fa di puudaru dama ne ñun dañu bëgg a wane ne bu du loon moom année blanche bi day am yéen a may dégg ñun nag fii ci Daaru Xuddus Ah, ah, ah, daaru musti am na loo xam ne duñu ko nangu tey ndax Ibrahima bu mu fi ñëwee barke démb daf ñoo wax ne programme bi nga xam ne moom la bëgg moo ñu jël alxuraan bi daal di koy dugal ci éducation nationale damaa ragal na nag loolu <laughs> foofu mu laan nag foofoo tàng moo tax ñu ne ko acca ci biti waaye nañ leen xamal dara man de je suis un militant de première heure billaahi te nag gis nga kii nga xam ne moom mooy Ibrahima mii <laughs> ñaar a tax ma topp ko dama koo topp ndax fa mu fa mu juddoo topp ko ca la mu jëf waaye naa leen xamal dara maa leen xaar ci màggal ba bu yow boo leen ñëwee ba daaru musti ngeen tourné jël yoon ba xam ne moo nekk ca kaw boo leen jaaree ci suuf ay ponkolo laa leen di xaar dama ne ku ne Ibrahima Paar nga bëgg costé déedéet du am dama ne Ibrahima du Paar te du costé fa mu toog lay toog on va dama ne ñun ñëpp dinañ yooyu kere yi ren kenn du fi jàngalee daaru musti moom kere du fi am kere yëpp nañu jël xale jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg kew nañu dem jël ca kere ya màcc ko ba mu jeex tàkk kere du fi dugg big du fi dugg dama fii daal on va faire la waaye yow ma ne lii dafa yomb duñ ko bàyyee noonu ndax du du fi am tey du fi am ëllëg loo leen bëgg nag gis ngeen ko fii lañ koy waxee ci télé bi nga xam ne moom la Sidi Lamine yor lu tax mu neex ñu mooy moom du dagg du censuré te loo wax mu jàlla ko te bu fekkee ne nag ca mag ki ngay wax da ciy gën a sawar moo tax ñu ñëwee fii waxee ko fi waaye nañ ko génnee TFM mbax moom la ñuy seetaan ñun waa Daaru Xuddus TFM la ñuy seetaan na message ba dem nag bu leen ko nag a te bu leen ko censuré Ibrahima jusqu'à la mort dama ne li nga bëggoon jàngale moom lañu la téye wañaar la waaye boo ko bañee boo ko bëggul yëpp on va sortir dama ne màggal gi billaahi kus dama ne xaar leen ba ngeen ñëw ñu ngi leen di xaar boo leen jaaree Daaru Musti rek di ngeen xam ne ne bu keroogee ak ah ana nga ana ngeen dama ne xale yi ñoo doon wax yaanaa maar mais yaanaa moor dégg nga téléphone baa ngay sonné allo Macky yaa ngi may seetaan koo dara tele sànni xeer rajo compal Sidi Lamine en direct da nga bëgg a dugg munoo dugg jaaral ca serveur ba ndax mooy dundal xaalis na télé bi comme que compaloo ma nag jaaral jaaral ca fa nga war a jaar droit de réponse amu fi dégg nga ba tey nga ne ba ma ba tey dégg nga ba tey ma ne ba tey dama ne ba tey dama ne maa def sama diin ak jamono maa dégg nga gis nga man du ma wax ak yow Macky du ma wax ak yow mënu ma laa jaxase kenn la am laa wax protocole d'accord ba nga def ak Ibrahima Sall dégg nga wane ko maa ko wane looloo am dama ne compal ma damay compal xaaral ma teg kilif tuuti ñëw xaaral ma teg kilif ñëw te nga jël la ci suuf ci kaw nga bëgg a war a ca suuf bu dee ca suuf la compal la bu dee ca kaw nag doo doo fi tontu kon jël ma ca suuf jël ko ca suuf eh soldat mag jël ko ca suuf dégg nga jël ko ca suuf ca a Sall ga dégg nga jël ko ca suuf ñaw dégg nga Ibrahima yéex naa yëngu jël ko ca suuf jël ko ca suuf dégg nga teg ko kilib jël ko ca suuf mën a jël ko ca